gannaaw bi nu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd yu nu nekk ñaan suñu borom nii nu ci tàbbee mu kàttanal nu defal ndimbale tawfiq ba nu man ko mottali te mu dëppook nii ñu di ko sante te ñu nangul nu ko te fulal nu ko fekkeloo nu ko yu bare bare bari yu ànd ak jàmm ak xéewal ak mucc di ci jiital nag sunu kilifa yi teew ci jotaay bi sëriñ Abdul Qadir sëriñ Murtada mu àgg ba ci seen kilifa ya Cheikh Maodo Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekk Sëñ Tuubaa nuy ñaan suñu mu yàggal ko fi lool te wéral ko lool ba mu àggale mboolem ay naan mboog àggale mboolem ay yeneen ko ñaanal Sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo fi toog jotaay Sëriñ Saalix mooy ni ko Sëñ Xabibu ñaane ci njëlbeenam suñu Boroom bàyyil ko fi lu yàgg lool lool te ko wér ak kàttan baagale naal yëpp tànn ko mbali maaka bii sëriñ Xabibu jërëjëf ci waxtaan wu boo xam ne jaamia chamila ci tomb bii nga eh, seen sony bu jaaral na ci léegi mu mat mat goo xam ne fiqihiyan ak xaqiqiyan xëy na di ko ci commentaire si doo xam fooy tàmbalee waaye dañuy gën a sóobu rek tomb bu mujj bi muy diggante Sëriñ Tuubaa ak koor la jiitu koo bëggoon mbëggeel boo xam ne dafay mbëggeel gu wér gu dëgër gu sax gu fés gu ñëpp xamoon te waxoon na ne mooy mbootam shahru ramadaan sirri wa rabiul awwal liya day ñaari weer yoo xam ne ñoo bokkoon wàccuwaay ci moom ni ko waxee soo masaan di jub day njëkk feeñ ci xarkan moom na muy bellee na muy bégee na muy nga xam ne ku ku ñëw soxla soo ko mën a indi mu faj ko ak su manoon ak lu mu la yëree te wax xanaa gan ko tedd nga koy waajale sox sox ma ne man xanaa gan ko tedd nga koy waajale daal lay jox bëgg gi mu ko bëgg itam da bëgg ngir wàccuwaay bi mu am weeru kaa dafa am wàccuwaay bu màgg bu tedd tax mu daa ko yàkkali di ko teeru di ko waajal bëgg ji mu ko bëgg it mu feesal ko cay mbindam إني أحبك حب الذات طالب من مالك فيك إشعار بلا أول إني أحبك يا شر الصيام بلا غش فأهلا وطرحم بلا عدل dama la bëgg bëgg koo xam ne dara koo jikkoon mooy ak bëgg rek bëggu jëmm ni bëgg jëmm maanaam sa jëmm ci boppam la bëgg di ko seetloo fashhad bi xubbika xubbat daati yaa amali nga xam ne ay abaat yu bëree bëri xam ne ca njàlbi na xasee sax bu ca def tarjaan di wax ne allahum inna inna xalil wa habibi shahr ramadan xad istahalla alayhi yow sumba sama xarit bii di sama soppi bi di shahr ramadan eh, ñëw na ci man fenk na ci man wax nañ ko léegi muy xasida goo xam ne ci fam ko doon taalifee ci jafe-jafe yi mettali ne ko jànkat jànq bi daa ko gën a xaal mas na koy yëkkatiroo yaa teroon ci bi muy teru gunge ko yaatal bashaaraat bi mu ko mu jeex mu ne ma yaatal bashaaraat waaw àgg mu ne diggante yaari yaay yii teguma fi bët li ma si xam ne kon weeru koor woo xam ne waxuma la mos lu ñuy jóge ci waaye teg ko ba di képp neen neen neen te gis nga xasida gi bi mu koy taalif day mel ni ku ne ci jamono yu neex ku ne ci jàmm ku ne ci ak tal ci rafet gi si bu doon doon doon doon dox léegi waaye gis nga jafe-jafe mu nekkoon na xasida gi man ni ni ni ni mu rafeteeg na ko ràbbeeg cofeel gam ca feeñal ak lool lool lool dafa nekk lu yéeme góor gi kon loolu la loolu la ci fésal nga xam ne koor googe la doon wax ne bi bi ko waree ba koor gi jeex mu bëgg génn murum koor ëmb lu mu génn murum koor neen su ma ko amoon sax ëmb ko ma ko jox ndax ab julli néew fa waaye mu jël xural xadaf laa man te zakka wàcce xasida def ko murum koor bi julli jotee sango naa ndi ko suñu borom santaane dem ba ca pencu dëkk ba xam naa ne kenn du ñëw waaye ma xool ndeyjoor càmmoñ penku sow gisuma kenn nee na ma kàmbar am ñaari njegemaat yu taxaw di ma seetaan su ma kàmbaree ñu ree su ma yi ñu ree su ma ñu ree loolu nag nekkoon tumuraanke gu wax na gu mettee metti la ca la way woon ñaari xasida yooyu waaye njaarim nag la ko la ko dundali dëgg dëgg dëgg dëgg ni ko suñu xab yi waxe léegi xam ne fu nekk ni dafa daa bàyyi ko di ñëw ci kooru njaay nga xam ne bu jant ma samso xeeti naan yeeg café yeeg bisaab yëpp ci ay bërigo lañu ko daan def taaj nga xam kenn du ko tere kenn ñi daan tàngal warga yi ak ak yi su jant soyee ba ba njël taal bi sëñ ba neen taal du fay saa bu ñu sottee rek tegaat noonu lañu koy fanaane ba fajar ñam yi dañu seddale di séddale ba fajar jot ceeb yi cere yi tàndarma ji lépp daan daan ji lañu sëñ bi lim Jóob nee na xam nga sëñ sëñ Tuubaa koor yi daan dajeek dajeek nawet ak gàmm da daan taatan ta maanaam bu daan taw nawet wala bu daan taw koor wala gàmm du ko daan taatan ndox moom du ko daan taatan di ko denc di ko barkeeloo wala la mu koy doyee loolu da ca tàngal yenn ay kafeem ak ay wargaam yu mel noonu waaye ndox yi mu daan dajale nag léegi daan ko seral di ko teg ci jàkk ji ngir eh, bu bu bu bu jant soye dongee di ca naan daa mujjoon coow li day bari lool ci jàkk ji sëñ bi nekkee mujj eh, sëñ Afia Mbàkke mu baax moomee ne ne nañ ko génne yóbbu ko ci bitti ndax coowal gone yi bi sëñ bi ñëwee nag digg coow coowal gone yi la wax sëñ ba léegi ne kon ana liggéey boobu nga laa def ndax ko ndax ko defatut mu na ko axakee ah, mu ne ko waaye nag sëñ Afia moom nañ ko nañ ko yóbbu ba nee ci bitti mu ne bisimilah xanaa xamoon ne coowal gone yi gone yi war ba ngoon coowal damay naan duma naan lu naqari seytaane la daal waaye na xam naa ne foofu day gën a yaatu foofu day gën a yaatu nga xam noonu la ko doon noonu la ko doon dundalee daa ko dundal ci alquran waaye nag moom waajal daawut bàyyi ba koor dikk mu di ko waajal dafa daan waajal ca bu rajab rajab ca doon tàmbale chambaan baasi koor ilayhi qad tubtu fi sha'bana am rajul mujadin fii ka fashhad lii bi tarki dati nee na man ci rajab lay tàmbalee waajal ko ci tuub sha'ban ne waajal ko ci tuub koo dikk ma ma tuub dugg dugg ko ci biiram ne ko nag ma seer na bàyyi naa lépp luy dadu dadu mooy allah walaay mosu caa jaar waaye day jàngale day war a yoon kane ma lam an maa lam yufidi kooku du def ak kon noonu la ko doon dunde nga ne ne ci biir koor gi li mu koy dunde dunde dundale mooy tuub tudd yàlla sant yàlla ak jàngal alquran daa tawbatin fiika aydan maadiyan abadan bi dikri wa shukri wal quran lil ahadi kon noonu la ko doon dundee wax nañ itam suñu bés yu nee na su koor masaan jub daana ràbbul ay romb jaan ngir di ko waajal koor romb jaan yu baree bari daa takk lu ay néeg ngir di ko waajale koor daa gas lu ay teen ngir di ko waajale koor ba am na am na teen bu tuddee woon ramadan am na teen bu tuddee woon rabiul awwal ngir ak fonkam ñaari weer yooyu alxuraan ji itam ñem daan tànn ñuy dem ca jàkka ja ca biti dafa ne ndax moom moo daan la ci ci biir di jiite waa këram donte daan am du dox seen diggante ba duñ ko gis waaye dañ dégg kàddu ñoo xam ne mooy natta bam seen man alquran sàmmonte ak ahkam tajwid yi alquran ju sell ba tax na ku ñëw Abdullahi ibnu Abdullahi Abi ibnu Abi moom la ko daa def lool mu doon ko man alxuraan lool nga xam ne gannaaw bi dafa ne ko ñuy wax ku ñuy wax euh, ki ko wutuwaat euh, tur yi rëcc na ma. naar bu waaw. jawaat mi ko sajjaat sajjaat laat bu jawaat sajjaat bu ñu jógee mi ko kooku moom xam naa ko moom nag nga xam ne bu bu koor ñëw bis bu njëkk bi lam koy jox dana ko mën a yor ca weer wa te bis bu set noonu la ko def bis bu set rek dana ko jox lox dana dana ma dee su demee ba koor gi jeex mu jaxaat ko loo xam ne mën na ko mën na ko yor ngir dundam noonu la loolu fa fa mu feeru koor su koor masaan jógee daf day soññee itam day soññee wax ne masaan weer masaan feeñ bañ seen ko ci foo toll da nga kàddoom bi moom Sëriñ Tuubaa maanaam nammat leen pas-pas yi te yeesal pastéef yi nàmmaat leen pas-pas yi wax ko ñetteel daal tàmbalee waare wax ne lam daal dénkaan dafa mës a bind ci suuf chehru ramadana bind ci suufam alquranu wax ne chehru ramadana juróom-ñaari xaraf la juróom-ñetti xaraf tolloog juróom-ñetti bunte aljanna alquranu juróom-ñaari xar la toll juróom-ñaari bunti sawara dana kon nag bu cheikh ramadan mii terootee farlu leen ci alquran mii kon su bon dee leen tëjël juróom-ñetti bunti aljanna te dootu leen ko tëjëlati ba mukk tëjël leen juróom-ñaari bunti sawara te dootu leen dootu tëjëlati ba mukk kon noonu la ci daal soññe bu sambaan masanjëw sax ci lay ci lay wax ne dee leen nemm ko seeni xol tey seeli seeni jëf ndax noonu say noonu yàlla bi da xam na ne waxtu wuñ koy tëj leemu agsi ba tax day sàpp ci seeni xol ku ci sàggan tuuti mu sànni ci aw jiwam boobu ba mu ca sànni nag waxtu wuñ ko tëjee lu koor gën dem lool man a gàncax ko di di gën a mag ci sa xol gën a sàggan di gën di gën a sàggani di gën a sàggani jàmm yàlla mu ne ko nag dee nem bi ko xal yi tey def te yéene nga xam ne waare su waxtu nekk su génnee Shaaban ak Rajab saa bu génnee lu mu gàtt gàtt gàtt daañu leen jox bind ab waat ci ci ci lépp ci waajal kon foofu la ko tegoon daa ko dundal daa ko dund kon nag loolu nag war koo jàng ci moom war ko jàng ci moom lam man nag kenn kenn kenn na na ko defee kenn mënu ko ndax ni mu ko waxee léegi ku kenn xamul lu mu doon la ndax munoo ne malaaka la munoo ne yàlla mu ne kon ko kenn xamul nu doon la yàlla maa la taxle moom waaye kon waaye teew na roy ko nag ci jaamu yàlla ci sellal ak pas-pas loolu ko ne mën na ko sa kem kàttan xam ne kon yàlla wu mag woo xam ne mosu ko yemaleeg dara moo gàmm mosu leen yemaleeg dara kon ku bëgg mbégam na nga ko fonk na ko fonk la yar yooyu xasida gii di eh, yaa xeeru dayfin su koor gi mu santeeru gannaaw ba ñaagi julli si dañ koy jàng ca mujj ko ñu jàng yaatal bu sharaati loolu itam ca fukki fan mujj nga yaatal bu sharaati ndax gee da koo na woon weer wi bii mu gungee ko weer wi lim bi ni ci ay xasida nag yu jëm ci weeru koor bari na lool liñ gis mat na juróom fukki xasida ak juróom-ñett liñ gis ëpp na ko waaye liñ gis mat lool juróom fukki xasida ak juróom-ñett bi ci weeru koor la ko jëmale tënke weeru koor mbaa mu ci wax lu jëm ci weeru koor kon nam ko fonke ba dee rabin awal lu baree bare bare bare bare la ci nit ci ay tënk ak tënk ak xasida nga xam ne da nga koy tënk benn yoon léeg-léeg baam ko ay yoon tënk ko ko ak lu baree bare bare bare bare kon weer la waxam daal bu tedd ngoogu kon nañ nañ nañ ci farlu baax a baax a baax a baax ni ko suñu xaj bu waxee léegi sellal gi mooy li ci am njariñ li ñu ko wax ci ngëneel lay tax ñu jëlee ko ci mooy woor ko ni ko mu xàqee xóona yi jàng te suñu tubaab jàngale ko nañ ko daan defe tafsir ba jàngale ko noonu mooy woor goo xam ne du doon bàyyi lekk bàyyi naan rek waaye da ngay sellal fexe ba say say cër doo ci jëf lenn lu la mën a jural bakkaar kon daal li ma wax ci njëlbeen mooy waxtaan dafa ma sëkk ba boo koy commentaire doo xam foo foo jaar ak looy looy mën a indi euh, ñu teewal fi nag euh, daayira Muxaddamatul Xidma te liggéey bii ak booba di benn rek mooy liggéeyal sëriñ bi ci lislaam liggéeyal ko ci néegi yàlla liggéey boo xam ne ndigale Serigne Saliou la woon 94 eh, 1994 la ci joxoon ndigal daay jox jox leen tur yi daay ko leen jumaa ji di di fa liggéeyal boobu la indi woon liggéey biir mooy gisoon nañ ne sàppe yi ni mu daal salfaañoo léeg-léeg jigéen ñi dugg ci biir jaxasoo nga xam ne ay sàpp da ngay gis da nga ciy góor gis góor gis yi wala sàpp su jigéen nekk ci ci kanam sàpp su góor loolu nga xam ne ci gis bi image bi rafetut ci la yem yéene ji ci lé ci taxaw ci dem ci moom laaj ko ci ndigal mu joxe ci ndigal joxe tur wi ci lañ tàmbali di defar sàpp bi jubbanti ak a defar gannaaw bi na la ci yokkaat yu bare bare bare bari Eh, sëñ mot laa joxoon ñu digale ne ma bu ngeen mënee fexe ba duñ gisante sax moo ci gën góor jigéen ñi ma a day ñu wutan rido yi dox seen diggante xam jigéen ñi féete fee góor fi nga xam duñ bu yàgg mu ne na ci boole julli yi eh, muy muy dox di dox ba fi mu toll xëy na jaar ci li li réasi yëpp du du yomb waaye daal fii mooy mooy liggéey bi gannaaw bi nag ñu seetlu ne xutba xutba jumaa li ko taxoon a jóg mooy waar nit ñi fàttali leen xamal leen ca la tolloog lañuy dund ñu sa léeg-léeg ngay xukk ni ak di ko waar mun a amin wóor la ne kon kii li ñu wax xamu ci dara ca lañ dellu sëñ Saalihu leera ko lool bi ñu ko wax sax reer da ko jàpp da cee reer mu ne ko nag jox naa leen ndigal ne ba ma leen joxee ndigal rek xam naa ne xam ngeen li ngeen war a xam kon lépp loo xam ne seen ngeen ba xam ne jaatu na jur sax ngeen ci laaj bi gërëm ngeen ci digal ci lañ tàmbali woon bayaan bayaan yooyu nga xam ne moom lañ jumaa ji ñu tànn benn tem tànn kenn ci eh, ñi ñi ñi ko mën a taxawee ñu waxtaan ci lu tolloo li nit ñi dund lu yitu xutba xutba xutba xutba arab bi ba mu jën ak jumaay murid yëpp roy ko ndax jumaa jee mooy mooy symbole symbole yoonu murid mooy bi nga xam ne lu mu def rek ñëpp ñëpp mën ko caaroy ba lii lépp loolu mooy li koy indi kon ñu xam ne ko liggéey bi lépp benn la kon bu ngeen jëlee jotaay bu njëkk bi tey jagleel nañ ko kon loolu am na ci xol bu sedd euh, wan ngeen ni kon liggéey bi ñoo ko bokk liggéey bi fii mooy ba foofu ba foofu mooy bi fii kon ñu ngi ñaan suñu borom ni ñu ko tàmbalee yàlla ko yàlla dëgëral defal leen kàttan defal leen ndimbal ak tawfeex ba fi ngeen jëm ngeen àgg fa te bañ a ngeen doon bañ a delgaaw loolu nag ñuy wax ak kàddu si ñaar fi mi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy njiital daayira bi ñaar si imam waaye rawatina ci euh, ci laaj na saqaaf yi bi nga xam ne euh, membre laa ci sëñ Bilha Moussa nga xam ne euh, ñoo ko seq kon ñu ngi sant bu baax a baax di bég ñaan suñu borom rek ànd bi yàlla dëgëral ko ñu di ko seq ni ñu ko seqee ba lañ cay bëgg muy ngër ko suñu ci suñu borom rek ko defal ñaan baax a baax yàlla fi yàlla yàggal lool. te wéral la te kàttanal la ba nga àggal si yére ndax yi mel ni yéen njariñ lañ njariñ lañ lool ci ci ci ci ci ci askanu njariñ lañ ci ci ci yoon bi yàlla yàlla dëggal ñu kàttan ba ñu àggal seen yéen barke Seex Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu